صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا DFC Dieng Saala et frères communication ñoo leen di ñaanal màggalu jàmm mbokk yi DFC ñu ngi ca Touba Colobane di jaay matériel accessoire ak téléphone ak bépp xeetu matériel électronique mbokk yi ak DFC fa la lépp yi baax DFC vous souhaitez une très bonne màggal نساء وفي ذبر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بك